Sénégal citoyens yi dañ leen yàgg nax di leen gëmloone dinañu tabax réew mi dinañ fi dugal ay milliards dinañu fexe ba dund gi yomb ci nit ñi ma ne est-ce que dund bi yomb na ci yéen coono gasi coono gasi donc Kama moo ñëw pour tabax senegal Kama moo ñëw pour tabax Fuuta est-ce bëgg ngeen ñu tabax Fuuta est-ce que ñi fi nekkoon tabax nañu Fuuta est-ce que am na fi ku am programme bu gën sama bos pour tabax Fuuta kon lan ngeen di xaar man ngeen doon xaar yegg si naa kama ngir tabax Fouta kama ngir tabax Sénégal il ne faut pas avec l'État l'État c'est du sérieux il ne faut pas avec l'État boo amee xam-xam am jaar-jaar da nga war a am loxo yi set da nga war a jub danga war a am yërmande ci population yi kon nag Sénégal seen responsabilité mooy ngeen tànn koo xam ne kii am na maturité

ma ne tabax fuuta jot na naxaate bi doy na tey nag kama moo ñëw kama mooy tabax fuuta xam leen ne tey naxaate bi jeex na réew mi est est-ce que yéen waa Fuuta kontaan ngeen ci état bi déglu ma rek ma ne est-ce que yéen kontaan ngeen ci état bi lim leen def déedéet coono gasi kon nag jërëjëf dinañu fexe ba xel yi dal xol yi féex